baax a baax a baax a baax a baax di leen jox euh, comme niñ koy defee toujours rek di ñëw di waxtaan ak yéen di ko teg ci yoon euh, tey nag fi ñuy tàmbalee waxtaan bi comme niñ koy defee toujours c'est la politique mensongère l'injustice la corruption notre seul espoir et une jeunesse intelligente, puissante et organisée. xam nga boo leen gisee lu ma jëlal leen cadeau yi indi leen ko c'est parce que dafa wara am leçon bo xamné dañ ko wara jangat ci li nga xamné mom mo xew li leçon la manam dañ ci wara am jangat buñ ci def dañu wara jangat né ne ñu ko ay fenkat ak ay tappalekat ak ay kat lañu ay wuruj ak ay kat manam duñu ay nit yo xamné ils sont dignes du nom xam nga dignité dafa am lo xamné da koy jouer lu bari ci dundu doomu adama waye ñiñ ko sekkal amuñu dignité té bo sekkee ak nit bo xamné amul dignité ne t'attends jamais pour mom mu dox ci yoonu deug

c'est pas des personnes yoo xam ne dañoo dëggu ay tappalekat lañu àndal ak ay wurujkat ak ay warajkat yoo xam ne dañoo teg diil teg diil ci kaw ndoddu sénégalais yi te mu leer leen ne diil boobu nga xam ne ñoom moom la teg diil boobu ñoom ci la yaakaar pour sax amaana dund dund bi sax ci lañ ko yaakaar ndeysaan ba Sonko génnee tey dafa am dof bu jóge fële ndaw si Californie mu ñëw mu ne waaw moom ak Sonko ñoo waroon live benn heure bii waaw man ak moom yëpp ñoo waroon génneendoo benn heure bii ah attends non non non xam nga Sénégal il faut ñuy joxante tuuti cër dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd léegi yow naka ngay nekkee une prostituée politique maanaam nit koo xam ne yow ja xaalis jaral na la lu ne. manam man nga cee jaay sa ngor man nga cee jaay sa bop man nga cee jaay sa kaddu man nga cee jaay lu ne ci ci khalis yow nga mën taxaw nga ne ki nga xamne mom espoiru jeunesse bi la manam mom bu waxe ndaw ñi lay waxal waxul sax ak n'importe qui mom buy wax ñi nga xamne xam nañu luy seen futur ëlëk mom ñoñu lay waxal ñi xam enjeu Sénégal yi moom waxul ak kat yi waxul ak ñinga xamne dañuy dajale xaaliss ci turu nit dem joxat ko doomu bobu deluat delu wat ci doomu bobu bobu nangu wat xaaliss bobu amna lu ñu xam ci yow de elen sen deal bi mi ngi tocc ci sen bir te mi ngi claté koppar ya nga dajale won 1 million 500 ya nga dajale won bindu ko ci sa écran bu mag bobu ne da nga dajale sar 1 million 500 yow jelat nga xaaliss bobu ci loxo Adji sar Orange Money na la ko ci sa sœur yooyu yëpp ñun yëg nañ ko il foo ngeen xam ne patriotes yi dañu rax fépp déggoo ma de patriotes yi dañu rax fépp dañu leen rax ñu ngi ci seen biir patriotes yi yaa ngi ci bureau président patriotes yi yaa ngi ci groupe APR yi patriotes yaa ngi fépp il faut ngeen bàyyi loolu xel léegi sa takkandeer bi sax bu ko wóolu parce que les patriotes du Sénégal ñi nga xam ne dañoo bëgg changer seen réew te teg ko ci dëgg fépp fu waay dugg ak fépp fu waay ne te muy dox ci dëgg rek ñu ngi ànd ak yow waaye fépp fu waay dugg aussi te fépp fu waay ne ngay dox ci fen it's a matter of time balaa ñu lay démasquer mais xam nañu leen on se connaît xamante nañ de yi dama bëgg ñu jël benn exemple politique mensongère bi nga xam ne suñu gaay yi ñoom ci lañu jàpp boobu ba léegi Adji Sarr tëddee nañ ko Adji Sarr violé nañ ko Adji Sarr def nañ ko nangam Adji Sarr dugal nañ ko fii Adji Sarr génnee nañ ko fële ba waa ji Diouf daan génn di tëb di dal mu ne ADN la soxla ca ka nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko waaye comme ni ko Ousmane Sonko waxee tey Euh, nee na ko ADN moom defe naa ne bi gën a yomb mooy ngeen dem jëli ADN Bob Marley waaye nag am aussi ma gis suñu euh, frère ndeysaan rappeur bien connu ki ñu bëgg ci àdduna bi yëpp mu ne comme Bob Marley amu fi après man ngaa dem jëli waa jooju sant euh, xam ngeen ki may wax jazaka borom rasta yu xasaw yi kooku bu ñu jëlee ADN am ngeen mën a jël ADN boobu mën koo jëfandikoo waaye li am te Moy, pourquoi Ousmane Sonko war len jox ADN bu fekke Ousmane Sonko la nga xamne moy certificat de médical certificat médical bi nga xamne mom lañu won ci moment wu Adji Sarr te ñepp am ko ci aduna bi et c'est public hein so len ko amul ma yonné len ko yéen waa yéen waa euh, le rapport médical wa APR bo len ko amul ma yonné wat len ko parce que ñun am nañ et ce rapport médical a bien dit ñu né elle a été reçue dans notre service le 2 mars, le troisième mois, troisième jour, 2021 à 16h 15 minutes. L'examen de ce jour ne trouve pas légion. Dégloulen encore des légion. Trouvez-vous dara trouvé wul biir trouvé wul euh, laale trouvé wul jege rapport baa ngi nii rapport médical bi dinañ leen ko postel ngeen gis ko comme yéen waa APR gisagu leen léegi nag ndeysaan euh, du ay leeral sax ndax ay leeral moom dépassé nañu étape boobu fi mu toll nii waaye dañ leen di wax rek ne euh, Ousmane Sonko soxlawul joxe ADN parce que fu séq amul ADN bi lan nga koy comparaître maanaam yow nga ne doomu aadama bi jox ma sa ADN ADN mooy DNA DNA ADN doomu aadama la plupart bu ñuy def loolu ci nit day fekk doom juddu ñu ne walla doom ji xamuñu kuy baay bi ñu defal ko test paternel pour ñu xam loolu dañ koy jaarale ci ay ADN walla aussi ñu gis tay doomu Adam, bo dañ ko faat dañu jël bakkanam ñu fekk fa deret wala ñu fekk fa ay mbir ñu comparer ak suspect bi ak personne bi nga mais en ce moment du moment où amul kuñu ñu amul kuñu amul nous gañ légui ADN Sonko pourquoi mu len koy jox ah, ah doomu yi tamit dañuy waxante rek yow nit kii dafa ne dañ ko tëddee dañ ko siif ñu ne la nit kii kenn tëddeewu ko kenn siifu ko moom ci boppam kàcc bi mu kàccoon biir ne dafa biir biir bi léegi mu mat ñaari at bu doon éléphant sax ni kon wasin na tey rek laa dégg ndeysaan <coughs> nga xam ne xale yee bëgg Sonko xale bu bizarre bi nekk ci réseau sociaux yi sax nee na tey doom jooju ñi mu ñi mu ànd ñi mu nekkal moroom yëpp ñu ngi université maanaam kooku ba mu nee dafa biir rek léegi bu wësi noonu ni kon heure bi fekk na doom jaa ngi université commencé naa joxe dépense ci kër yaayam léegi ñun naka lañu ñu mën a toogee loolu yëpp ñu romb ko fi ñu ñëw ak suñu fen yi ak suñu caaxaan yi yëpp ñëw ñu ne léegi ñun lan la ñu soxla lan moo ñu dese ñu ne test ADN nañu respecté wante waaye respecté doomu sénégalais yi nañu joxante cër nañuy joxante cër parfois joxante cër lu bax la ci suñu biir nañuy joxante respect joxante cër parce que doomu adama bo xam né nañu dañ ko tëdde doomu adama bobu ñu def test yi war yépp ci aduna bi ñu yóbbu ko ci docteur ñu xol fu neem ñu ne ki dafa séqul sax ak nit donc lan motax ngeen wara a né wala ki wala comme séqul ak nit ñun dañuy dem rek dañuy soxla ADN am mais xam ngeen tu sais comment c'est dangereux nga am ADN homme politique bu melni Ousmane Sonko man nga sax ray doomu aadama nga dem nga jël ADN bobu nga jax nga rax ko fenn nga ne doomu aadama bobu ñu ray ADN Sonko nga fa fek ça c'est dangereux lolu Sonko bu ko defon man ci sama bop may xam il n'est pas fit manam matul pour ñu def ko président de la république Sonko bu demone ñu ne ko ADN rek mu joxe ADN am ci ñii njëkk reculer na dof la ñu nar a jox suñu réew mi man ci lay bokk damay ne man maa ngi soog a comprendre ne Sonko c'est une c'est un malade mental maanaam lu tax muy joxe ADN yow tëdd la wax ñu ne kenn tëddeewul wala ñu ne dugal ñu ne kenn dugalul kenn génneewul ñu ne siif ñu ne kenn siiful ñu ne biir biir amul léegi nga ne doomu aadama boobu na jël ADN am maanaam xam nga ADN bu doon par exemple tey jëmbat gerte xam nga gerte du jekki jekki rek nekk garabu gerte am ay doom meññ ADN mooy jiwu doomu aadama bi jiw bi jiw bi ton ADN doomu aadama bu nekk ADN am dafa wute keneen maanaam sa jiwu yow bi nekk ci yow sa ADN buñ ko jëlee ci yow tellement sensible nga jël ko nga jox ko ay délinquant yow sa ADN pour ñooñu yor ko à leur possession ça c'est très dangereux ci réew mu mel ni Sénégal donc na ñuy waxante dëgg ta ñuy wax doomu aadama yi dëgg te ñu respecté ak ak yelleefu doomu aadama yi ADN lu garaaw a garaaw la mën nga cee def lu bari ci doomu aadama mën nga ko atteindre mystiquement mën nga ko atteindre ci ci yeneen côté criminellement man nga ko atteindre ci côté yu bari ADN boobu sax yow mën nga ko utiliser contre moom ci beneen jigéen ne voilà kon du Adji Sarr rek léegi Sonko beneen jigéen génn na nee na sekk na ak moom voilà ba keneen tamit ñëw na léegi bi ñu xoolee ADN nii fekk nañu ADN yi lépp benn la mais Sonko il est très intelligent alhamdulilah rabbil alamin maa ngi soog a wax sénégalais yi xam nga yàgg naa leen ko wax nee naa leen Sonko c'est pas un n'importe qui soo leen bëggee am président bu am fulla ak fayda da ngeen di jël nit ñu mel nii ngeen teg leen ci bopp réew loolu moo waral nag mu indi waxtaan bi ci côté patriote yi la jeunesse xam nga patriote yi am na loo xam ne ñu ngi koy gis ci réseau du lu neex mana mana bi mana mana maa def li man ma indi lii ma waxoon lii ma wace asamaan si ma walbati euh, car rapide yi man maa def lii journaliste yi man maa def fii maa indi fii déedéet gis ngeen àdduna bi yaa huit milliards d'habitants kenn ku nekk am na njariñ bu fi rapporté gis nga Ousmane Sonko tey bu doon puzzle maanaam bu doon puzzle puzzle xam ngeen luy puzzle donc bu doon puzzle kenn ku nekk ci sénégalais yi am nga ci part ci moom kenn ku nekk ci moom moo tax ku lim juum man quand même damay remercier ñëpp ñoo xam ne jàpp nañu ci mbir mii ba ci xale bu ndaw bi Parce que je vais vous dire une chose, même nos enfants ont contribué à ces choses. parce que ñun ñii xeex xam parce que da ngay moment yoo nous savons, am bu mu Nous sa de bi nga dëkkal ci kër gi da ngay mu yëkëti ko ci Ousmane Sonko mu am lo da koy ci yow pour nga comprendre rat ko ci affaire Ousmane Sonko. donc ba ci lire bi juddu demb amna ci Ousmane Sonko.

loolu c'est pas xam nga lenn rek dina leen ko may kenn rek la may lolu Moula Morgan xam nga Moula Morgan c'est mon frère sama xarit mom rappeur la mom da ngeen koy comprendre mom c'est quelqu'un qui parle ses vérités de sa façon c'est un rappeur aussi tay mi ngi mel ni suñu grand nit dof suñu xarit ñooñu ay rappeur lañu xam nga même vrai que ils sont venus defuñu ni yenen rappeur. yi ñoom dañu utiliser seen art bi pour ñu ñew changer ñu complexité xeex bi parce que rappeur yi bari nañ Sénégal de ak euh, chanteurs yi waye ñun ñaar ñi ci ragné muy tay Mola Morgan ak euh, Nit Dof ak wa Y'en ak ñenen ñoñu lañ ci ragné ñoñu lañu ak Tunkara Tunkara n'est pas un rappeur il n'est ni artiste ni rien c'est un Sénégalais lambda qui a décidé de prendre ce combat comme un combat du changement du Sénégal avec ses propres moyens, avec son énergie, avec son temps, avec tout ce qu'il peut contribuer pour changer le Sénégal. loolu ñun ñëpp muy keneen ak keneen ak keneen ak keneen ku lim xam nga boo limee rek day indi erreur mais amna ci ay journalistes, amna ci ay activistes, amna ci ay jigéen ay activiste yu jigéen ay journaliste yu jigéen maanaam combat bi dafa bari li ci rax bari ni ci rax am ay bindkat aussi suñu ay frères activistes yoo xam ne ñoom dañuy bind rek du ñu wax donc ce komba est un de tout un chacun kenn ku nekk ci ñun dafa war a joxe participation ci réewam xam nga Sénégal gaal la sunu gaal kenn ku ne dafa am wàll ci gaal kenn ku ne daf ci am ak ak yelleef aussi comme li leen wax toujours ñu ne ku def sa wareef nga mën a laaj sa ak ak sa yelleef loolu nañ ko fi donc cette jeunesse sénégalaise cette jeunesse jàmbaar yi yéen ñi nga ne da ngeen di ñëw def liggéey bu ci bi nga ne moom def ci patriotisme bi bu xaar merci n'attendez pas un merci le président Ousmane Sonko chaque jour mu fàttali Sabune les sympathisants et les partisans rek bàyyiwul kenn Koulim Djoum. juum wolof njaay nag moo baaxee boo rek voilà ñu ne voilà man limuma man konte wu ma man xalaatuma man fàttalikuwuma non c'est pas le cas je vous dis que ñun ñi fi nek ñuy xeex té ñu bok ci bi. Té ñu ko tout dans tous les fronts parce que bu len fàtte ne c'est pas seulement un combat des réseaux sociaux comme le dit le président Ousmane Sonko c'est aussi un combat du terrain nous nga ñun li tax ñun duñ ko bëgg le moy xex bi buñu woté ci terrain bi jitu fa buñu ci terrain bi ci campagne électorale soit sur le terrain nga def sa kenn ku nekk ci ñun na def akam ak yellefam té pas ci xaar dara xam nga dama Euh, dama baax di déglu ay waare dama koy baaxee ma déglu benn waare boo xam ne ndeysaan euh, mu ne euh, ku mel ni mufti mufti defe naa xaw ma ndax yéen ñu bari di ngeen ko déglu mu ne doomu Adama a person mu ne boo xalaatee ne boo yëgee ci yow ne ñu ngi wax ci yow maanaam Euh, tey yow nga yëg ne ah ñu ngi wax ci man mu ne ni ko war a def mooy danga nga war a ne alhamdulillahi rabbil alamin maanaam doomu aadama nga jóg rek ñuy wax ci yow lu ñaaw tu te sens parce que ce combat est bizarre dafa doy war lool nga sentir ne yow mii dañu ngi wax ci yow lu ñaaw neel alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nga bàyyee ko nga bàyyee borom ak yalla parce que kooku lu bax la la defal yow ya ko xamul rek mais il t'a fait quelque chose de bien té ñun loolu lañu baxo dañu baxo fuñu dajalo rek ñu ngi wax ci keneen ñu ngi ngagne ñu ngi wàññi ñu ngi dénigrer mais il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges Sénégal dem nañ ko ba bëggatu ñu déglu lu bax lu bon rek lañu bëgg a déglu saa bu ñu lu bax doomu aadama diko wax ñun ñëpp dañ fay sori waye sa yi ñu déggoon nit ñew di wax lu bon ci nit rek ñun ñep ñu daw si ñu ñew di ci contact donc nañuy bayyi lolu xel ça c'est notre devoir en tant que patriote parce que patriotisme du lu yomb sayidina usman Sonko mu sell mi dafa ñew mu deggal bopam rek dafa ñew mom li ñep doon layam layame mom mu ñew mu deggal bopam mais bu leen fàtte ne y d'autres personnalités te bari nañu ah comme ni ma leen ko waxee ku lim juum ñoom ñëpp ñu am walla ci komba bi xam nga quand je encore une fois boo leen lire titre bi ma la politique mensongère tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu adversaire ci senegal ñoom ci fen rek la ñuy dox jéemuñu doxal dëgg jéemuñu wut dëgg ñu wax dëgg ñom lepp lo xam dañ koy lijeenti ci combat bi ci ay fen lañ ko bëgg wék ak ay tapalé ak ay njuuj ak dundé deretu doomu adamay parce que vous savez que ce cas a dit ça li ce n'est même pas waxuma côté complot bi dafa jéggi complot mais da gars légui dañ ko def commerce Adissar elle est commercialisée maintenant ku bëgg am touti sax day wax Adissar elle est commercialisée mbirum aji saar bii parce que ku bëgg a saaga Ousmane Sonko rek fu mu koy jaarale aji saar nangam aji saar Ousmane Sonko nangam ça c'est la politique mensongère maanaam politique boo xam ne yow ci fen rek nga ko basé indiwuloo benn idée indiwuloo benn xalaat bu baax boo xam ne mën nga koo teg ci loxo sénégalais yi pour wan leen ne que nii laa fas yéenee changer Sénégal amul ci benn fànn boo ko teg la politique mensongère loolu ci ay fen doomu adama nga jël sa mbir yëpp nga wékk ko ci ay fen de politique mensongère injustice bi nak defe naa tey de suñu situation ak ñi nga xamné suñu adversaire ak ñi nga xamné ñom lañu bokal Sénégal vraiment dañu toll ci situation boo xam ne ñu ngi yàq suñu réew ci injustice ci doomu aadama yoo xam ne defuñu leen dara tey boo xoolee garde corps Ousmane Sonko yi ñu jàpp mais am nañu dëgg bi on connaît la vérité ñun ñëpp gis nañu dëgg bi dëgg bi xam nañu ko xam nañu fu dëgg bi nekk te xam nañu luy dëgg bi garde corps Ousmane Sonko yooyu ana lañu tooñ ana kan la def dara ana lañu wax dara ana lañu la tooñ wax leen ma dites-moi bu savez tu ñun ñëpp xam nañu xam nañu li xew ci Sénégal kenn layam layameetu ko ces garde corps la ngeen yaakaar na ñeenti nit yi gën a tax ko takk Ousmane Sonko ñooñu dinañu séparé wax Ousmane Sonko di dóor dàqeek ay nit ci biir kër bàyyi Ousmane Sonko librement ñooñu mosuñoo sori Ousmane Sonko boo jëlee la cas Momo Emet Marcy bi mu amee Momo la ñu jëloon grenade lacrymogène dugal ko ci biir yéreem bu ko yàlla dimbaliwuloon mu gaaw koo génne sànni ko loolu mënoon naa takkal yaram mbeeg baat bi mënoon na koo rey loolu mooy dëgg mënoon na koo rey Y'all on schedule, go. On schedule. Madame Momo, nous on a tous suivi ce qui s'est passé. Timo mois de mars moi, ñi Ousmane Sonko nanguwu a dem fenn Nous dem a un mètre Ousmane Sonko. ñooñu kan la ñuy dem dóor yi ak kan la ñuy dem gaañi banditisme bi yëpp Macky sàll di ko def pour benn pexe rek pour jéem a xool nu mu gàllankoore Ousmane Sonko loolu pour lan dans un pays où bu ñu nee tey dañuy compter li nga xam ne moom moo xew ci Sénégal daanaka lépp mat na daanaka lépp jeex na Sénégal li fa war a am li ñuy wax toujours la rek yàlla moom dafa noppi ba pare banditisme est pour lan c'est pourquoi garde corps Ousmane Sonko yi ñu arrêté c'est pourquoi Ousmane Sonko doomu Sénégal yi ñoo a c'est garde corps c'est la population c'est les patriotes Moi, de mars le garde corps Ousmane Sonko yi ñoo a xeex ñoom ñoo demoon génne Ousmane Sonko ci jafé jafé yi mais c'est la population sénégalaise c'est la jeunesse sénégalaise jeunes yoyu ñom ñoy ar Ousmane Sonko xanaa kon tu t'es tu t'es perdu de cible T'es bu fekkee da nga bëggoon ciblé sécurité Ousmane Sonko kon jàppal jeunesse sénégalaise bi yëpp nga dugal prison parce que ñooñu ñooy sécurité Ousmane Sonko ñooñu ñooy sécuriser Ousmane Sonko ñooñu ñooy ña nga xam ne du ñu dellu ginnaaw te ñu te du ñu bàyyi ku laal Ousmane Sonko donc est-ce que c'est pas peine perdue tamit ngay jàpp doomu jàmbur yi. tey boo jàppee activiste bi nga dugal ko ci prison am na ku ma ko doon fàttali keroog mu ne ma waaw fàtte ngeen waaw Macky Sall boo xoolee jeunes yi mu jàpp nii ma ne ko jeunes yi mu jàpp nii bu leen fàtte ne émetu mois de mars yi bi muy xew Macky Sall a arrêté Guy Marius Sagna il a arrêté Clédor Sène il a arrêté Assane Diouf bëgguma juum boole ci Dame Mbodj bëgguma juum mais xam naa ne daal il a arrêté beaucoup de personnes

ak boy téléphone hein xam ngeen limay wax ñaata nit ak ak la grosse la la la notre caterpillar de de de de de de Californie hein bu ma ko tuddee caterpillar balaa jéegu caterpillar di mer hein ñaata nit ñoo fi ne jaay seen ngor jeunesse bi mënoon nañu def loolu et ils ne l'ont pas fait ils sont restés constants ils ne sont pas corrompus kenn mënu leen wër ndomba li ñu gëm loolu la ñu gëm te ci la ñu taxaw donc dañuy waxante dëgg boo leen xoolee li xew ci réseau yii wala ngeen xool ci li xew senegal di ngeen xam ne yàlla rek mooy Karim personne n'a le monopole de la vérité kenn nag amu ko du usmaan Sonko du usmaan Tounkara du makki sàll du Demba Njaay du Paate Njaay du Masamba Njaay du Demba Jóob du kenn sénégalais yi ñooy xool ki leen neex li leen neex ñu ànd ak moom li may wax nit ñi la toujours ma ne leen man Amérique laa nekk dama xam politique ni muy doxee fii politique lu doy waar a ngi noonu danga nga daan gis ñun fii entre no candidats comme Donald Trump gis nga Donald Trump qui ngeen le tey mu lëmbe ñu ci Amérique bi muy politique Amérique Il est nek candidat dans les années 80, il amul a 1% d'électorat Il n'y a 1% d'électorat le même Donald Trump quand il a été candidat en 2016 amul eu presque 1% pour nous taper pour mon pour mon am nomination républicain ouais constance bi amone ak détermination bi ak Donald Trump ñepp dañuy yégué ko wacc mom mu né tek 1% 2% 3% mu jékki jékki di yégg 5% 10% 15 20 30 40 50 ba mu gagner élection Amérique Donald Trump bi muy gagner élection ma waxaat leen ko Hillary Clinton bindoon na déjà euh, euh, waxam pour gagner maanaam euh, discours gagnant bindoon na ko ba pare dañoo mujjee xotti discours boobu sànni ko mu def discours perdant loolu moo am loolu moo leen di wan na yàlla dëgg rek la bëgg ak jub ak teg ko ci yoon tàppale manta yorob réew gis ngeen Ousmane Sonko lu ñu ko bëgg bëgg luñ ko yëkkati yëkkati mu gën a kawe ci sénégalais yi xam nga tey say Ousmane Sonko dem na foo xam ne tey lu luñ koy wooyee du Seydina Ousmane Sonko mu sell mi bis bu Seydina Ousmane Sonko mu sell mi demoon ba commencé trahir ba commencé manipuler sénégalais yi ba commencé ñoo wax lu dul dégg ba sénégalais yi sentir ci seen bopp ne sa Ousmane Sonko il n'est pas véridique les sénégalais feront face te Ousmane Sonko boobu li koy dal mooy gën a metti li dal makki Sall mii ndax li dal ab Ablaye Wade ñun ñëpp gisoon nañ waaye xam ngeen ne li dal makki Sall mii moo gën a metti li dal Ablaye Wade donc Ousmane Sonko mii tey ñun ñëpp ñu jël suñu ay deret ak suñu sueur teg ko sur la route pour baare la route au au faiseur de malin au malfaiteur Ousmane Sonko boobu bis bu jéggee tali bi. wallahi li muy gis mom moy raw li nga xamne mom la Macky Sall miy gis te dinañ ko waxiwaat ndax li ci kanam raw li bët mo xew tay de na yag xew yàll na ko teg ci deug rek te yalla tax parce que les Sénégalais on a sacrifié nos vies on a sacrifié nos sueurs on a sacrifié notre argent on a sacrifié notre temps pour ben nit yalla dimbali ñu ñu yeggal ko ci bop réew bis bu nit boobu jalgatee les sénégalais feront face te xam naa ne loolu mooy gën a garaaw ci àdduna bi ñu gis rek Ousmane Tounkara yàlla nañu yàlla musal yàlla suturaal ñu aar ñu gis Ousmane Tounkara bu def trois cent soixante degré ça c'est grave boobu mooy gën a metti bi parce que bi ñuy guerre Macky Sall on était même pas établi donc dama ne jeunesse bi ñu amaat ngëm-ngëm jël suñu suñu ngëm-ngëm yëpp teg ko ci li nga xam ne moom mooy projet bi Ousmane Sonko wax nañu ko nee na bu leen ko teg à sa personne ndax boo tegee sa yaakaar ci doomu aadama man ngaa am mbetteel waaye nañu jël yaakaar bi yëpp ñu teg ko ci projet bi ndax loolu lim ñuy defal mooy incha allahu rabbi ëllëg ak sibir lu ci mën a xewit du ñu am mbetteel parce que le projet restera même si la personne change le projet restera toujours le même ndax projet la projet gis nga projet dafa société bu Apple projet Apple nga def ko mais le CEO madame, le patron de Apple devient corrompu Donc koy jël rek nga le patron bu mu continuer doxal Apple lolou motax ñun société américaine, ak projet parce que le projet ne fait pas la personne la personne fait le projet que moy wax Ousmane Sonko daf ñu indil projet mais projet bu baax la indi mom mo gën ci ñun fi mu toll nii ci lañu gis waye yalla buñu dimbalé inshallah rabbi gëm nañu né avec le président Ousmane Sonko et ce projet là le Sénégal va changer pour le bon Sénégal dina changer pour le bon lolu la gëm man gëm na né Sénégal bi buñ ko xolaté ñenti an at ci kanam dinañu gis benen xar kanam bu bess ak benen doxalin bu bess lolou la gëm dama gëm né Sénégal bi dina ami xari kanam bu bess ak doxalin bu bess ndax projet bi ñu Ousmane Sonko indi ça c'est un vrai projet lolou mo waral jeunesse sénégalaise bi ma bëgg encore ñu concentré wu ci li nga xamné mom moy dëkk xam nga ñun bu ñu né dañuy indi dëgg dañuy indi dëgg rek te yalla tax mbiru Adji sar Ousmane Sonko bi dès le début on savait que le complot a été fait par le gouvernement de Macky Sall Fi dara besu fi ne day gennat rek manam le yi moy gennat deug yi lañuy gëna fessala ndax ba dañu Ousmane Sonko ñukoy pamti pamte di ko yéegale parce que ñom xamnañu ne bis buñu woyé Ousmane Sonko ba mu wax rek mbir mi day jeex day frankulaay lool lañ doon bañ té légui nak comme président Ousmane Sonko genn na waxna légui sen solal nañ leen ay ndoket ak ay turban ñom ñep génn nañu ku nekk ngi wax sa parce qu'ils sont payés pour ça voici la différence vous les patriotes vous n'êtes pas payés pour défendre la vérité mais ces bandits sont payés pour faire la politique mensongère ils sont payés pour ça dañ leen fay pour ñu def ko yéen kenn fayu leen pour ngeen wax deug tu as vu la différence qui ñu fay ko a fait ko qui muy wax say muy wax muy donc nous allons waat suñu xel Nous suñu les frères sénégalais frères et sœurs sénégalais sénégalaises nañu nous faire suñu xel te on est dans un combat combat comme nous avons toujours sommes course de fond marathon là. bis bu am lu ñom ñoom pareeguñu ci Ousmane Sonko mais ñun nañu déterminer plus que jamais té ñu tek suñu tank fañ ko téggon té ñuy dox ci dëgg ndax Yalla dëgg la bëgg kuy dox ci dëgg Yalla dalay jappalé Yalla ñi dëggu lay jàppale yàlla du jappalé fen Yalla du jappalé fen kat Yalla dëgg Yalla dafa né dëgg ak fen mais nee nañu leen déjà fen dafay yëngal aras donc lolu amna lu mu leen wax donc dafa bok ci yi nga xam mom la yalla gëna a comme ñom ci ay fen lañuy dox nak inshallah rabbi duñu yegg fi ñu bëgg a dem ak seen fen yi ak seen sos ak seen tàppale bi ñu yegg ils ne finiront jamais ce qu'ils ont commencé ces gens-là ci gatché lañuy ñuy mujj ci gatché ces gens-là ils vont finir par aller se cacher Cette jeunesse est très intelligente, très puissante et très organisée. Xolal tay Ousmane Sonko wala kenen wala ben patriote bu baax rek yëkkati ben cadeau bu baax tek ko ci net bi dañ koy circuler lo 300000 fois Lolu moy deug. Bo daggee tay ñun suñu suñu wax yi, ma nga ca YouTube ba ma nga ca TikTok ba ma nga fi ma nga fële ma nga fépp cette jeunesse est intelligente et déterminée C'est ce qui a changé. une jeunesse intelligente puissante et déterminée et organisée ce qui ñu indi ci point bi ñu nekk ndax ce combat de Ousmane Sonko a été réglé pendant des mois jeunesse sénégalaise bi rek borom TikTok yaa TikTok borom Facebook yaa Facebook borom Instagram yaa Instagram borom YouTube yaa YouTube ñëpp a ngi def ndeysaan woykat yu baax yi ak rappeur yu baax yi ndeysaan ñoom ñëpp ñu ngi def seen wareef seen àq ak seen yelleef les bons politiciens seetlu leen rek li may wax boo demee tey même dans les politiciens qui s'appellent des opposants boo demee tey da ngay gis ndeysaan affaire bu doy waar xoolal ndeysaan suñu kilifa yi ñu mel ni ay ay ay ay ay euh, Déthié Fall nañ ko tournéem delloosi ko ba ci Sénégal pour lan pour ay tappale xolal li lo xam ndaysan entendre bi yëpp mbir mi deful 15 minutes comme niko président Ousmane Sonko waxe il a été demandé trois questions ndax sekk nga ak diw yabel passé na lool yow sif la ñuy wax yow am nga medical certificat médical rapport médical bi am nga ko rapport médical bi kay tontu na la lutax ngay jël rapport médical bobu nga bëgg ko lem duggal ko ci suñu table di démat voici l'incompétence wala la foutaise wala la politique mensongère yow yor nga rapport médical ngay dem di laaj nit ki ndax def nga nangam mais rapport médical bi wuyu la rapport médical bi wax na la ndax Ousmane Sonko sekk na ak mom wala sekkul rapport médical bi wax na la ndax sif nako wala sifuko ñom buñu dox ci deug rek ni kon mbir mi kenn du woote sax justice parce que li nga xam ne moom mooy tax pour nga mën a sax accuser nit ki viol loolu rapport médical bi ràndal na ko donc ñun ci ban réew la nekk ci ban Sénégal la ñu nekk ban Sénégal ban réew ban Sénégal gars yi nañu continuer gor lu rek comme ni walen ko waxe di di sakku nak ci sama xarit yu bax yi muy muy muy euh, sama frère activiste yi muy sama frère journaliste yi nañu lu rek ku ne am nga sa place te ku nek ci ñun billahi histoire dina retiendre pour yow histoire dina ñëw wax deug pour yow ben bis donc nañu rafetal rek inshallah rabbi nañu teg yëpp ci yoon te rafetal voilà l'histoire retiendra bu soobee yàlla histoire dina retiendre pour ñun dëgg bi dina taxaw waaye par parloo bi xiiroo beeg ŋaayoo bi jaru ko jaru ko de lépp dina baax incha allah gars maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla fii nga xam ne moom la ñu tàmbalee woon muy bismillahi rahmaani rahim ci mbir mi yàlla yeggalil ñu ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax xam ne ci ay fen lañu nekk te fen du béjjaaw fen du béjjaaw fen fen du béjjaaw de déedéet fen du béjjaaw dinañu gunge nag waaye duñu destination fen moo mel dinañu mais duñu Nous a yegg suñu destination ak fen respecté opposition bi nos frères opposants Ousmane Sonko lim na leen président Malick Gakou président lim na leen de opposants yi la lim lim na Khalifa Sall lim Malick Gakou lim euh, maanaam Déthié Fall lim Barthélemy Dias lim na lim na lim na ñi lim yëpp dégg nañ ko conférence des leaders lim na ñëpp nañu continuer rek te jàpp komba bi te mu dëgër lool te ñu teew bàyyi parce que ce combat est le nôtre

xam nga déggoon ngeen fi ay temps waaw dafa bëgg a nekk député de la diaspora moo tax muy xeex moo tax nekkuñu fi dara jéem ñu fi dara lijjantewuñu fi dara wutuñu fi dara du mën a mën a nag defuma ko pour mbiru mën a mën a on cherche rien dans cette politique dañuy def rek suñu àq ak suñu yelleef ak suñu wàll ci senegal bu lii lépp jeexee dañuy continuer yor suñu njaboot yi wax naa leen ko démb dama leen koy fàttali ñun suñu doom yi yëpp fii la ñu juddoo fii la ñu dëkk taaw bi rek mi ngi soog a am vingt et un ans macha allah barki démb sama taaw bu góor mi ngi soog a am vingt et naa ans barki démb le deux barki démb donc ba léegi am naa doom bu ndaw donc man tey pour ma yeggale lii may def fii yépp dis-toi soxla naa beneen vingt ans bu ma ko yàlla mayee ma dund ko vingt vingt et un pour ma yeggali sama doom yi yépp seen njàng ci réew mi ma mën a dem bu boobaa ñibbi sama réew dem ci tool ya fële teg samay piliyaan ak samay njoowaan yëkkati samay tànk mu kal booba mais pour le moment moom incha allahu rabbi dañuy contribuer rek ci li nga xam ne moom mooy suñu développement wu réew yenn saa yi ñu sonn yenn saa yi ngeen gis ko euh, ci suñu comportement ngeen gis fatigue waaye sacrifice bi moom je pense que saa buñ ko waree def muy génn ci terrain bi dem prison bañuñu ko ci bakkan bi sax da amul problème inshallah rabbi ba yalla may Sénégal ndam lolu rek moñu intéressé li ce combat est un combat de de génération suñu génération li suñu combat la goudi ñu toll dama ne ngeen tapalé relâché ces ces ces otages politiques garde corps président Ousmane Sonko ingen ngeen ñu dem ñu sam ak ak yelef Ousmane Sonko Macky Macky yaa ngi dugg ci danger bu grave Macky yaa ngi dugg ci danger bu grave grave grave grave garaaw ngi fu metti fu dangereux parce que tay imagine li ngay def ni ngay japp ke tejeke ka ngay tiaxan say tiaxan def fi ba. mu am loo xam ne menacé na vie wu Ousmane Sonko mais Macky du baax ci yow la sécurité du Sénégal et liée directement à la sécurité du président Ousmane Sonko sécurité Sénégal dafa lié directement à la sécurité du président Ousmane Sonko bu dara daloon Ousmane Sonko dara du des ci Sénégal xar yi sax dañ leen di dibi ginaar yi moom wax noppi nen yi sax dañ leen di baxal dëkk bi yëpp lañuy waay yow Macky góorgóorlul bayil jeunesse bi nga japp di len note pour lan fa waat jeunesse bi nga japp nga len di note pour lan tu as tous ces jeunes là dans la prison Ousmane Diagne Papito Kara Abdou Karim ah et ces jeunes euh, suñu jeunes yooyu yep nga dajale tuddee leen ay force spéciale nga japp doomu jàmbur rek dugal len ci bir kasso bi te len pendant ce temps sa dom il est libre sa sa famille la famille Faisal on connaît ce que vous représentez <coughs> dans le Sénégal li ngeen représenter Sénégal xam et pourtant vous êtes libre vous aurez quand même vous aurez votre tour chez le coiffeur mais vous ngi libre si ñu kenn waaxu leen kenn laalu leen kenn jegewu leen loolu tamit Macky foo ko teg foo ko teg foo ko teg ak pour lan pourquoi Macky hmm? dañuy dox ci dëgg te ñuy def loo xam ne tamit dëgg la te di def te yàlla rek tax jàpp ci vraiment jàpp ci lii ngay def nii tegoo ko fen lii ngay def nii teguloo ko fen set jeunes sénégalaise jeunes yi ngeen jàpp bàyyi leen ci biir kaso bi lii day taalab réew lii mënul indi jàmm ci réew gars yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jéggalu di leen jéggal di ñaan yàlla mu boole jéggal ñu ñun ñëpp lepp luñ fi wax nak comme nima koy waxé toujours té muy lu bax ñu xamné ci yalla la ak yonentam bi lepp lu fi jagadi aussi ñu xamné té ci ñun la té ay doomu aadama lañu te dañuy ñaan njéggal toujours di continuer ñaan njéggal comme ni ngeen koy gissé ñu bari dañ mané légui Ousmane Tounkara parfois tu as changé de ton c'est parce que aussi dama jëm mak damay waja am juroom fukki at ci deux mois j'aurai 50 ans té dama bëgg buma génné aduna bi ma dem aljana te xam naa ne lu bari laay bàyyi ci àdduna bi ci archive ci réseaux sociaux yi ak fépp te bëgg naa mu doon lu baax wala boog li baax ëpp li bon loolu laa bëgg donc loolu moo tax ndeysaan boo leen gisee ñu xaw a teey yenn saa yi ñuy xaw a teey on tape sur la table quand on doit taper sur la table mais bu ñu waxee war a wax waree wax fulla ak fayda aussi ngeen gis ñu def ko ci njëkk ak teraanga ak teey c'est parce que dañu bëgg a bokk ci ñooñu nga xam ne ndeysaan yàlla ñu baaxee àjjana te ñu koy ñaanal mbooleem jullit waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu gars yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jéggalu di leen jéggal